su ma mbokk waa bitim réew gis nañu si am na si ñoo xam ne du ñun ñooy àtte liberté d'expression dafa am ku nekk nag waxal ni nga wax ni nga ko bëggee askan bi mooy àtte waaye nañu bàyyi xel ni ko ñun ñu ngi bitim réew ñu ngi ci biir dëkk bi sunu ay mbokk ñu ngi ci biir dëkk bi sunu alal mu ngi ci biir dëkk sunu ay wayjur ñu ngi ci biir dëkk bi sunu ay doom ñu ngi ci biir dëkk bi ñun ñu toog fi ñu nekk te jàngat yi ñu def mooy ni que ñi xam bitim réew dëgg xam ñu am na ñoo xam ne ñu ngi wax na Sénégal tàkk na Sénégal boy na Sénégal lii na ni seen xel ak seen xalaat yëpp mooy nan la ñu Sénégal si dëkk boo xam ne dëkku difficulté la ndax ñetti pàcc yi moo koy waral Sénégal bu nekkee si dëkku difficulté ñoom dina leen arranger parce que fu ñu nekk dañ fa am ay problème judiciaire suñ leen waree delloo Sénégal dootu ñu leen delloo kon ñooñu seen intérêt la pour Sénégal tàq parce que Sénégal bu tàqee dëkk yooyu ñu nekk duñ leen mën a delloo am na si ñoo xam ne dañu am ay difficulté sociale ñooñu tey seen référence yëpp mooy ni que ñoom lu ñuy dund na ko Sénégal dund am na ñoo xam ne dañu am ay difficulté administrative donc dañu mën a càppandiku ci difficulté Sénégal yooyu pour ne ah Sénégal dafa am difficulté donc améliorer leen sama situation parce que li ma doon am Sénégal laa koy jëlee am na ci loo xam ne dafa ñuul ci soow bi ñun nag autre africa et ñun man particulièrement lenn liñ ciy mën a am mooy wax li nga xam ne moo si nekk pour intérêt wu Sénégal et dëgg rek moo ñu tax a jug ku nekk bitim réew nga bëgg taal Sénégal nga yaakaar ni que fi nga nekk ci jàmm nga nekk. waxoo dëgg nekkoo si dëgg te xam nga ni loolu du wéy nañu dànkaafu ñooñu nañ leen dànkaafu ñu waxante dëgg ku nekk nag tu es libre de communiquer ni nga bëggee ku nekk tu es libre nga wax li ngay wax waaye bés bu Sénégal tàkkee du la ci nañu waxante dëgg te ñu xoolante suñu biir xamante nañu déglu nañu discours yi discours yi bëri na si ay manipulation ay fen ay sos ay tuumal da ci bëri trop te ñi ci ëpp ñu koy def bitim réew lañu nekk di fenal ay doomu aadama di sosal ay doomu aadama di tuumal ay doomu aadama si ñu nekk bitim réew donc bu ñuy joxe nañu joxe information yu dëgg bañ nit bu mu tax nga koy sosal di ko fenal di ko tuumal te xeex bi ñuy xeex mën nañ ko xeex ak intelligence ñun autre Africa dañu mës a dàq troisième mandat si Afrique wax nañ ko sa Guinée buñ ko waree wax wax nañ ko si Côte d'Ivoire bi ko waree wax wax nañ ko sa Mali bi ko waree wax fépp fu ñu ko war a waxee dañ koy wax mais nan lañ koy waxee dañ koy wax ci jàmm dañ koy wax ci dal dañ koy wax ci xel mu sell dañ ciy dux di respecté tamit ñi ngi ko war a waxal jox leen seen wàccuwaay jox leen seen kii